xam nga réew mi dafa am ay sart ko waa Yeesal benn euh, organisation la boo xam ne euh, du nekkul démembrement de l'État dafa nekk partenaire de l'État mais mais partenaire privilège li nga xam ne moom la ñuy wax ci suñu membre yëpp képp koo xam ne da nga jël marchandise denc ko te population bi soxla ko état am na mécanique bu mu koy defee te loolu dañuy dégager suñu di ki loolu réew mi ku ne xam na ne su lu mel ni amee boo amee marchandise denc ko bañ ko jaay état am na droit ñëw récupérer marchandise bi jaay ko du ko du ko du ko du ko du ko sisir jël xaalis bi mais dana ko récupérer jaay ko ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla bu bu paree delloo la sa xaalis soo amee foo koy jooytoo doo ñëw fii parce que ñun yaakaar naa ne ci gannaaw dégg ngeen communiqué yi may def di ko jëlee itam ci ñi nga xam ne ñooy bureau exécutif ñu sant ma ko mooy benn commerçant bu mu yokk njëg benn commerçant bu mu denc marchandise ci situation bi benn commerçant bu mu fekk marchandise bu primé mu di ko jaay benn commerçant bu mu jaay forot benn commerçant bu mu jaay li ñuy bañ xam naa commerçant yi sox duñu ko def waaye nag boo ma ko tuddee te egguma ci dafa mel dafa lu may làq bu mu jaay dorog loolu mooy li nga xam ne joxe nañ ko comme ay directives ci ñi nga xam ne ñooy membre UNACOIS te eh, yéen ñi nga xam ne yéen lañ bokkal réew mi ngeen di ay journalistes di ñu fekk fu nekk di am seen i kii di dégg xam ngeen bu baax ne UNACOIS Yeesal eh, implanté tout l'étendue du territoire national quand association yi fukki nekk am nañ fa bureau départementaux yi eh, ay trente quelque la presque moitié bépp daj na te ñu ngi continuer di dem ci ñoom di leen installer donc état bi xam ne ne mu ñu yëkkatee suñu kàddu dana ci tenir compte parce que xam ne ne waxuñu ko rek di sànni ñi ngi koy wax di ko répété lii ma lim commerçant bu ko ci def boo tasee ak yoon duñ la ubbil suñu bureau duñ def duñ intervenir ci loolu loolu daal laa leen mën a tontu ci loolu na seen xel daal ci loolu stop bi itam lii ñu nu wax ak mois yi nga xam ne ministre de commerce wax na ko ñoo ko déggandoo parce que journaliste yu bari ñëwoon nañ fi mënuñu wax lu lum ñuy wax ñun mais assuré nañu ne fii ak mois yooyu benn daare du manqué li ñuy bañ nag commerçant yi dégg ko denc ko mu manqué pour que ñuy bëgg di jaay loolu aussi amuma yaakaar sax ci ne Mamour dinaa ko waaye dinañ ko def mais d'une manière globale du ma wax sax Mamour dinaa ko waaye ndaxte Sénégal yëpp duñ Mamour dinaa ko waaye mais damay wax ne képp kuy jaay ak jënd nekk patriote xew-xew bii am war na am lu sa yaram yëg lu may ngay wut ay bénéfice parce que nit ñi war nga leen a yërëm donc loolu daal yaakaar naa ne du am bu amee itam ku ko ci def lu la yoon teg nga féetewoo ko loolu laa leen mën a tontu ci loolu.